am solo parce que euh, objectif bi moo nekkoon rétablir la vérité parce que aussi bu ñu nekkee di ànd ñu nekk ay politique quelqu'un ku nekk war na a position mais parfois il faut aussi nga wax nit ñi dëgg parce que dans la ñoo xamante ne dañoo au niveau des législatives le premier xam mu au niveau de la du département de Matam am nañu jug créé ay liste parler le ministre de la justice dit bien je le précise

après loolu ñu bëri si ñoom dañoo ñëwaat ñu ne comme que élection locale la woon passé na maintenant le reste le président nous demande travailler ensemble dañuy ñëw liggéey ak yow en tant que formateur départemental ñoom ñëpp ñu ñëw ci Djila Fall di liggéey moom ci initiative boppam mu créé benn cadre cadre boo xamante ne lu mu ci wax yëpp ak ñi ci nekk lu mu ci wax yëpp dëgg parce que dafa ni cadre boobu ñi àndoon si liste parallèle yi ñoom ñoo composé cadre boobu

def vérifiable aussi lim naa fi ay nit tey boo demee au niveau de Oréfondé boo demee au niveau de Oréfondé boo xoolee tey ku fa nekkoon deuxième boo xoolee moom jib si la tudd tey liste parallèle la demoon mu ngi ànd ak far euh, au niveau du de de du dynamique unitaire dirigé par le député Farba Ngom mu ngi ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar boo demee au niveau de Thion ku ñuy wax euh, Zoro kooku.

ñoom ñëpp si ay part lañ demoon tey dañoo ñëwaat àndaat ci dynamique benn bokk yaakaar boo demee bu la sotti ki ñuy wax sama euh, Siré Dia ak euh, Ismaïla Dembélé ñoom ñu ànd si bis parallèle tey boo xoolee dañoo ñëwaat ànd ak coalition benn bokk yaakaar dans la dynamique inter pour les élections législatives nekk si ginnaaw coordinateur boo xoolee au niveau de Matam aussi donc tey bu ñu déggee ñëwoon.

légalement reconnu et légitime Nous, comme dit nañu nous nangu ànd ak donc il est important nous nous wax exactement gars yi li ñuy wax dans amu ci Nous, ñoom ñu ñu leen yëpp kenn si ñoom nekkul foofu vide la un instrument politique pour exister parce que c'est politiquement il est mort C'est ça la réalité donc nag loolu day baax boo l'état, tamit 2019 c'est si si parti il est venu en 2019 depuis 2008 ba pas élection bu un mandat Macky da koy gagné à 93% ou 95% Ou en 2019 ba bu waxee tey am na ñu nekk si ginnaaw wala changer la donne au niveau départemental xam ngeen nous mënul ce c'est pas vrai c'est de la politique. Nous, nag vraiment ñëw vie pour l'air de wax leen wax leen à mon amul voilà donc il faut qu'il arrête de tromper le président Macky di créer ay cadre yoo xamante ne pour euh, exister politiquement di fabriquer ay chiffres di di def o combat euh, par politisation donc ñun jeunesse bi dootuñu ko nangu duñ ko nangu et à chaque instant bu ko jaree dinañ ñëw fii vraiment leeral ba mu leer nañ en tout cas loolu laa bëggoon wax si loolu.